bismillahi rahmani rahim <clears throat> alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin ibn abdillah sayid al awalina wal axirin wa ala alihi wa sahabatihi wa ala tabiin wa taabi'iihim bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa innaka anta 'aliimun hakiim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisaani yafqahu qawli yaa himmata sheikh uxdur lanaa bi haadal mahdari waltaxsu fii bi nazratin ta'ti lanaa bi zafarin wa ba'd ayyuha saadatul xuduur nuxayikum bi taxiyati lislaam taxiyatun min ahli aljanna ala wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ma ne maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di sant yàlla ci bés bi nga xam ne ki ko oote dafa oote pour ñu santale ko ko te génn bi la doon na génn bi moo waral mu nañ ko santale xarajtu yowma sabti saamina achar li xidmati lmuxtaari fi chahri safar kooku mooy Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi alayhi nga xam ne mawlaana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu ca 1922 wala 1923 téere bi mu njëkk bind tuddee ko ruuxul adab nga xam ne daf ci yara yaraate waaye di ci jàngale taalibe beeg sëriñ bi ana nu nan ñu war a àndee pour taalibe bi jox boppam sëriñ bi pour jëriñu soo demee ci téere boobu bàyyi bi mu ko bindee bi mu tëj bi danga nga mu ne qad qaala fi haza al majaalu amjadu qadimu taha malikiyul ahmadu fa laysa yuksibu sawaad al jismi balaa balaadatal fata moom bàyyi balaa la indi waaye moom ak safa sawa wa suu al fahmi boobu bàyyi dafay expliquer ne lef wii muy téere bi mu bind nii ne complexe bu der bu ñuul bi xam nga tubaab bi moom wala nit ku weex ki dafa foog ne moom moo gën ñëpp te lépp lu mu def ci mbaax nit ku ñuul ki waru koo mën a def bàyyi di expliquer loolu ñëw ba indi wax bi joo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba moo ko wax mu jël référence te vingt 1922 yàgg na ndax at moomu ci la baayam di alxaaji Abdoulaye Niass génn àddina te boo seetloo sax mu ne lef ku gën a tedd wax na ci xam nga sëñ sa Amadou Bamba ñëpp dañ naan ku tedd ki waaye moom Baye Niass ki gën a tedd la wax al amjadu afaala tabdil la jëfandikoo ci wax ji li tax ma ubbee loolu mooy dëgg-dëgg dañ fay dajee ci daje boo xam ne daje sant yàlla la ñëw ànd ak xam ne ku jara ànd ak la tey ci yu mel nii rek mhm. ci la dëkk di ko def ana alayli wa atrafa nahar mooy fu jotaay bu baax am suba ak ngoon guddi ak bëccëg dana bàyyi itam yëpp dajale délégation ne ñëw leen ñu dem te gëñ naa ci yàlla ne dëmb ci heure bi man ak moom ñi ngi aéroport Dubaï pour war a décoller foofu ñëw senegal parce que bés bi rek moo ko itteel soxna muminatu muminatu xam nga olof fay yàq tur waaye kii turam bi gën a sell ci tur yi la al muminatu xam nga alquran boo demee ci ca laaya jëne inna al muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminaati foofu garaat gu yàlla jox góor ne boobu mën na faa jox na ko jigéen kon tur bi tur bi dafa am solo moom laa ci soxla muminatu moo tax ma gëm ne képp ku fi toog gëm nga yàlla képp ku fi toog Cheikh Ahmadou Bamba nangul na la sa bésam bii nga xam ne ci nga ñëw di ko santale boromam Cheikh Mouhamad Nazir ñu ñëw ànd ak moom jugee ko Dakar yoonam yaramam su tante woon na sax ci suba teel la ma jot dama sama yaram metti na ma ne ko wallaahi da dem parce xam naa sa itte ci jaamu yàlla yi xam naa sa ko ak waa Touba yi ñu toog ba mu yàgg rek mu ooma ne moom bismillah kon waaj leen ñu dem bi muy ñëw moom moo jiite délégation bi Cheikh Mouhamad Nazir Seck nekk alfaailul xeer defkati lu baax ci jaamu yàlla yi waxuma ko de waxuma ko ngir ne dama koy wax lu ko neex de alsaan mi xam na alsaan baay mi xam nañu bu baax ci Medina ci diita fukki at wala fukki at ak juróom mu ñëw ñu doon gënuñu boobu sax mu emuñu nii alsaan xam na Cheikh Mouhamadou Nazir lu mas a am rek moom ak jaamu yàlla ñoo koy bokk bu amaan dix mille francs dafay oote ne ñëw leen ñu attaaye fexe ba ñëpp di yendu këram su ñëpp ñëwee mu def ci attaaye ak teranga yi mu ci mën a def moo tax ma xam ne incha allahu taala bu ko yàlla dimbalee fokk mu jëf jëf yooyu nga xam ne moom rek la xam nampee ko ci ay maamam nag ak ci ay baayam nampee ko ci kim yaakaar bëgg ko nga xam ne kooku rek lay doxee kooku rek lay tiitaroo muy Mawlana Cheikh al Islam Alhaaj Ibrahima Niass radiyallahu anhu dimbali na ñëpp koo dajal mit na muy mi ngi ànd ak ci délégation bi Cheikh Abdou Samad nekk mbokkam nekk xaritam nekk soppeem Cheikh am Cheikh Abdou Samad ibnu Cheikh Mouhamadou Yassine ibnu Cheikh Ibrahim mi ngi noonu toog den deg sang bu tedd bi nga xam ne dëgg-dëgg yàgg naa di ko gis ci écran bi mooy maam Abdou Simi dëgg-dëgg yàgg naa di ko gis ci écran bi waaye foo ko gis rek dëgg-dëgg ay teraanga rek ak ay mbaax rek ak jotaay yu mel nii rek ci nga koy gis mu wax fi wax ju baax wax ju rafet léegi wax joo xam ne wax joo ñun ñëw war nañ cee jàngee mooy ne këri diine yi fi dajee dëgg-dëgg kenn ku wax rek mën ngaa waxal des ñëpp ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare Cheikh Mouhamed Nazir mi ngi lay nuyu mi ngi lay ziyaare mi ngi lay wàccee sa nga xam ne majmaal baxray ni nga ci waa ji wax na ko mu ne bete bete mooy majmaal baxray ni mooy koo xam ne dafa boolante ñaari mbaax yi mooy boo demee ci yaayam foofu la bokk boo demee ci baayam foofu la bokk loolu mooy majmaal baxray ni ñu ngi lay nuyu di la ziyaare di la wàccee sa wàccuwaay nga xam ne ñaari kër yi dëgg-dëgg am na relation boo xam ne bu fekkoon ne moom rek moo ñu tax a jug danañ ci wax lu bëri Cheikh Mouhamad Nazir mi ngi ànd ak rakkam Cheikh Imam Seck mi ngi ànd ak Seydi Ali rakkam Seck mi ngi ànd ak euh, Alxaaji Baraam Seck ñu def ñaari oto ñëw ci bés bii nga xam ne bési sant yàlla comme ni ma ko waxee Cheikh Mouhamad Nazir mi ngi sant mi ngi gërëm mi ngi kontaan bu baax jotaay bi su gudd toon lim ñuy lim ñuy wax ne nañ ko wax mooy gën a gudd kàddu yi lool lim ñu wax ne nañ ko biral ci jotaay bi ba ñëpp xam ko dëgg dëgg dëgg su fekkoon ne loolu rek moom mooy tax ñu wax danañ wax lu bari communicateur yi nga xam ne tim alxaaji buur nga xam ne buur ñu ñëpp dëgg dëgg xam nañ ko mu nekk nit ku baax koo xam ne waxtu wu nekk fi mu fi mu fi mu far fi gëm ñuy ay sëriñam nëbbul ñu ko ñun waa Medina Baye xam nañ ko muy kër Cheikh Amadou Bamba waaye dëgg dëgg jëflante bu rafet lay jëflante kër Cheikh Ibrahim alxaaji Buur ñu ngi koy nuyu di ko gërëm di nuyu Alsaan Mbaye mi nga xam ne nag dëgg dëgg <laughs> mënuñ ko fekk ci jotaay bi wax ba wax ji jeex te duñ ko gërëm duñ ko nuyu moom tamit mu nekk koo xam ne kër Cheikh Ibrahima ñëpp xam nañ ko ah, ah que du ma la bàyyi rek nga gërëm ko yow tamit alsaan ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi sant mboolem ñi fi teew ñëpp di sant góor gi nga xam ne dëgg-dëgg kaddu yi rafet na alxaaji Modou Sambu ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa kaddu yi Cheikh Mouhamed Nazir kaddu yi la joxe woon soxna si gàtt na lool ci man la nag waaye moom wax na lu gën a bëri lii waaye mi ngi am ay jotaay yu bëri yoo xam ne ci biir dëkk bi ñu fa war a dem mu def comme lu mel nii comme fii lañ njëkkee ñu ne ñu joxe kàddu